Alimana Bathily Kane ñu ngi lay nuyu di la dalal ci Rewmi FM mhm. yow ngay secrétaire général SUDES enseignement moyen secondaire euh, général ñu gis ne euh, bokk ngeen ci G20 boobu 20 boobule di yëglu di xamle ne fii lekkay fan dina amal benn plan d'action mu mel ni mbir mi euh, mu ngi bëgg a law ci wàllum enseignement bi maanaam grève yi boo moyul dañ nañ dem ba en syndicat yépp ci grève lañ jëm li ni mel na lañ ko mën a Euh, euh, décortiquer. li li mel euh, nguur gi la. Hmm. nguur gi moo taxam du jàngalekat yi. Hmm. te warul taxam du jàngalekat yi. defe naa jàngalekat bu génnee yooxu teg lu ñu naan yë yëgandiku. teg hmm. préavis de grève. yow war nga ko mun a woo. doo bàyyi ba mu ne ba affaire bi àgg fa mu àgg. yow sax woowoo ko. mais daf nekk ay yoo xamante ni ay jàngoro yu law ci euh, jàng meeg jàngale bi yu fi nekkoon yu état bi waxoon dina ko lijjanti boobu ba léegi lijjanti wu ko. Mhm. boo gisee ñaari at yi dafa deme woon ni dafa am jàngoro bu fi duggoon jàngoro bi demul ba tey de wante enseignants yi wane woon nañu seen njëriñ ci ci ci dëkk bi lañu ñu bokk. Uh-huh. moo taxoon yënguwuñ yëngatuñu mais ki enseignant boo fi gis tey jii am na lu muy jooytu. Euh, tey ngeen di xamle ne di ngeen yëngu-yëngal euh, mbir mi nan lay demee plan d'action le lan lañ ciy xaar. liñ ci xaar. Uh-huh. mooy dinañu banque suñuy loxo. te àllarba ak alxames bii di ñëw. Uh-huh. wante talaata dinañu commencé banque suñu loxo buñ juróom-ñeenti euh, waxtu jotee ci suba. waaw euh, banque loxo yooyu nag dañuy yëglu rek bu état euh, nguur gi. Mhm. yëngatuwul dinañ ñun waa g mhm. dañu woote manko ak àndandoo ci jàngalekat yépp ñu ànd. xàccandoo dóorandoo. Mhm. SUDES enseignement moyen secondaire ngeen bokk ci g mais teewul daal di ngeen déposer préavis de grève ñu bëggoon a xam lan li nga xam ne moo bokkul ci euh, plateforme g euh, li ngeen xam ne yéen a ko moomal seen bopp moom ngeen euh, moom ngeen di kaas jamono ci ñun SUDES dañu nekk kuréel goo xamante ni. Mhm. dañu ëmb jàngalekat yépp ci jàngale bu kawe mi. nga jaar ci jàngale bu diggu doomu bi. Mhm. ba ci perantal yi. Mhm. ñun ñi tey ji dañu ne euh, nguur gi am na yu mu tàmbali di def ci école bi ak ci université bi. Mhm. am na ay chantier chantier yooyu benn àggu ci. université ji ñoo fi nekk ñuy tabax te pareeguñu. abri provisoire yi ba dakaar boo fi duggee ay abri provisoire a ngi fi. dañuy tey ji euh, nguur gi. ci li jëm ci euh, jàngale mu matale kat parce que école yi fii boo ñëwee ay san ay quatre vingt mm-hmm. nguur gi tey matdewul parewul ci wuyu jàng bi ni mu war a doxee ci Sénégal nii dañu bëgg tamit ñu xool njàng me jàngale bi yi jàngal suñuy doom mm-hmm. ñu matale ak suñu dëkk suñu aada mm-hmm. suñu cosaan ñu xoolaat njàng meeg bi nan la war demee bëgg nañu tamit suñu euh, làkk kàllaama réew yi mm-hmm. ñu def ko ci biir njàng meeg njàngale bi tey jii boo gisee élémentaire bi mm-hmm. ñoom dañuy corriger bac dañuy corriger examen muy certificat ak en sixième mm-hmm. bëgg nañ tamit ñu xool li ngeen di fay par euh, par ba foofu tamit doy na waar bëgg nañu ñi ñu naan décisionnaire corps boobu tey bu mu amati parce que décisionnaire li ko waral lu bëri li ñu naan lenteur administrative ci la bokk. Mhm. li ñu naan lenteur administrative mooy da ngay duggee tey bii at état bi jël sa ay kayit di ko ba mu fekk la nga am âge boobu dépassé. Mhm. ñu tuddee le décisionnaire. tey bu ñu doon suñu suñu sago tey ñu xoolaat ko parce que loi soixante soixante et ba léegi defe naa ne àdduna soppeeku na war nañ mun xool suñu fonction publique. Mhm. suñu administration ñu coppi doxin. bëgg nañ tamit ci enseignement technique ak formation professionnelle ña fay jàngale ñu defal leen formation comme niñ ko defee ci jàng mee dugg euh, diggu doom bi. ci seen déclaration yéen waa SUDES ñu gis ne yéen a ngi ciy woote euh, mbooloo maanaam ngeen bokk say wi euh, dóorandoo ndax da ngeen gis ne mooy li leen di jëmal kanam. waaw mbooloo mooy doole. Mhm. mbooloo moom mooy doole. la. ñun xam nga dañ naan jàngalekat te boo nee jàngalekat dañ naan mooy mais dañu tey dañun jàngalekat yi dañuy jàngee mm-hmm. ci transporteur yi ñoom bi ñuy grève ñetti fan lañu ñu grève mm-hmm. ñoom ñëpp a ànd ci ñoom lañu gën a naroon gën a xool féewaloo ak tàqalikoo ñoom bu ñu mënee féew bu ñu mënee ànd ñun jàngalekat pourquoi war ñu mën a ànd te jàngalekat yi du ñu leen jiite ñoom moom syndicat yi tey jii jàngalekat yi boo demee ci école yi ñoom ñëpp dañuy woo pour ñu ànd mhm. syndicaliste boo jël tey jii dem na ci école mais le mot d'ordre mooy unité mbooloo syndicat yëpp mbooloo kii wax ak le wax loolu amu ci solo tey jii li ñu bëgg mooy jàngoro ji nekk ci école ñu saafara ko loolu mooy ñu yitteel loolu mooy yitteel jàngalekat yi dëgg la tey bu ngeen sañoon mu nekk mais ndax loolu lu mën a ne la parce que oh. am na déclic am na histoire bu fi nekk tey ba mu jaral ñaari cadre ñu nemmeeku leen ndax foog nga ne tey euh, booloo dina mën a am ci ñaari cadre yooyu le moo tax su SUDES ñu amee gisin bu demee noonu hmm. moo tax ñun SUDES hmm. ñu jógee ci su bi nekk benn nekk ci SUDES àndandoo hmm. tey ji am na pàcc ci SUDES man bu ma jiitee boo xamante ni suñu camarades yi nekk yi jiite grève bi yi commencé grève bi. Mhm. buñ ñu woowee ñu ànd ak ñoom tey ci loolu. buñ ñu woowee ñu ànd ñoom ci ñoom tey loolu. ñoom nag ñoom ñoom les représentatifs. Mhm. ñun pare nañu ànd ak ñoom. parce que li ñuy xeex ñun ñëpp la concerné. au delà de ça sax ñun ci SUDES dañu gisee gisin boobu ba nga xamante ni SUDES ñi nekk ci daaree daaree ñu parental ñi ak ñi daaree nekk ci kaw. ñoom pare nañu pour ànd ak SUDES bii nar a xeex lii hmm. pour ñu ànd gisin woowu SUDES amin gisin woowu lañu ñu bëgg wan tey jàngalekat yi ne ànd bi mën na nekk bu fekkee saafara jàngoro yi rek la gëm naa ni benn nit warul teg euh, ci kawam euh, enseignant yi hmm. ànd bi lu ànd bi lu mën a nekk la 2006 hmm. bi ñuy boycotté examen yi syndicat yëpp àndoon te boobu dañu doon wax intersyndical deux mille dix bi ñuy woo ñaari cadre yëpp amoon nañu mais teewul bi ñu ñaari cadre yëpp la vendoo seen mot d'ordre bi ñuy saafara jàngoro bi euh, ñaari cadre bi signé sax li cadre ba doon euh, signéwul doon laaj loolu loolu la mujj signé sa ba enseignant yi tey jii li leen ñor mooy jàng meeg jàngale bi ak jàngalekat bi mhm. ñu jox ko cër jàngalekat bi am baat am baat du am alal am baat moo ñu yëkk ndax munoo fi nekk yow di grève kenn woowu la mhm. kenn waxu sax kaañu waxtaan yow nee ñu kañ lii ak lii ak laa ak laa nga mën xam nga ñun ja si grève dañ koy teg ci temps dañuy déposer préavis mhm. suñu préavis moo yéex moo jeex la di set bi mu jeexee nag ñu ni war nañ mun saytu tey jii ci xeex waaw oh, parce que syndicat jàngalekat nag ci euh, ñaxtu lañ lañ ko xamee. ci ñaxtu bi nag xeex def ci bokk xeex bi nag mooy mooy grève. tey xale yi mel nii euh, dañoo sonn euh, ndax yaa ngi gis ne ñoo ngi wàcc ci tali yi di wax ne dañoo bëgg a jàng tey nan nga jàngatee mbir mi ni mel. di ko di leen di rek. Mm. xale yi moom dañ leen di mastaw rek. di ko ñaawlu. Mm. di ko ñaawlu di ko ñaawlu bu baax. parce que ndongo yi buñ ñu ba génn naan dañu bëgg jàng. Mm. muy nguur muy jàngalekat muy société bi te ñoom yëpp euh, war nañu xoolaat seen bopp xale yi toog di wax dañu bëgg jàng kon ñun dañu leen war dimbali ñu jàng muy jàngalekat bi muy keneen lépp li ko yitteel mooy kooku jàng mais nag pour kooku jàng dafa war matalil parce que am na ñun ciy nat bu année bi jeexee ñooñu ciy nat nag fi mu nekk nii pratiquement boo ci ratee weer rek am nga lu bëri loo loo ratee te ñiy def vague ne nii ren dañu war xam ni mooy ñi nga xamante ni en deux mil en deux mille vingt ñoom la fi crise bi fekkoon. Mhm. seen année boobu ñoom matul parce que ñooñu dañu jàll ci benn semestre. Mhm. te jii ñu am ñaari ñaari euh, mois de grève donc xale yooyu boo xoolee ba sa biir ci li ñu war a am. ci ñu xayma leen des na bu bëri te bu ñu jàllee it dina ñekk nañoo yoo xamante ni seen euh, jàng seen ci cycle matul foofu tamit foog ñu bàyyi ci xel ñi def ba tey jii mooy ñi nga xamante ni en deux mille vingt mhm. sont passés avec un semestre benn semestre lañu la ñu jàllee ñu ngi ci deux mois de de grève. ba fan la ñu mën a séentu mouvement d'humeur enseignant yi. ah ba ñu saafara jàngo yi jàngoro yi. bu amul. Ah, bu amul. mën nañoo xaar ne année bi dina gën a tar si njàng meeg njàngale mi. ah di dina dina metti parce que mënuñu ñu fi nekkal nguur goo xamante ni xamul ku dul ku yooxu parce que nguur gi président de la république moo fi toog ne mi ngi remercier enseignants yi di louer seen patriotisme enseignants yi nga gis muy G20 muy des ñoom ñëpp bi euh, mbënd bi euh, euh, kii bi amee jàngoro corona bi mais dañuy yëkkati ci li ñu am ci as mu ndaw tekk ci loxo ministre nekk gis nga lii la ñu ma am lii la ñuy def ci xeexu coronavirus waaw mm-hmm. mais nag ñu toog depuis 2003 boo gisee accords yi 2014 2018 yow nga tey nii nañ la defal benn liggéey ñu defal la liggéey liggéey bi genn nga ni daa woote wooteewoo wooteewoo waxtaan nga nekk di yokkal ñeneen ñoo xamante ni laaj ñu ko sax ñaata arrêté lañ fi signé pour yokkal ci yeneen secteur ñun dañu ni tey nañu yemale ja nañu yemale liggéeykat yëpp Sénégal. Mm-hmm. ka am di ka am diplôme bi lii moo ko mandargaal keneen ki tamit ñoo war a yem parce que Sénégal ñu que defuñu loolu yemale liggéeykat yëpp mais duñu ci génn duñu ci génn développement du mun a am. Mm-hmm. am na dëkk yoo xamante ni tey ji yooyu am fa te dëkk yooyu ñoo ñu gën développé. Alimana li Kane ñu lay jaajëfal bu baax a baax. maa ngi lay jaajëfal di la remercier. di remercier waa Rewmi FM.